bi yeesu delloo asamaan dafa waxoon taalubem ne leen toog leen be jot xel mu sell te ci fukki fan gannaaw bu mu yegee asamaan taalube ya ñu ngi boole woon toog ci benn bereb di ñaan yàlla te ci saasi benn ngelaw gu mag fekk na leen foofu dugg ci néeg bi ñu nekkoon feesal ko te noonu ñu daldi gis ay donji safara di wàcc di tegu ci ñoom ci kenn kenn te noonu ñu daldi fees ak xel mu sellam bay di wax ci yeneen làkk ci kàddu yàlla